daanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom tuuna réew ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ ne am kontaan ak mbégte comme ni ñoo koy defalee saa su ne ñu ñëwaat ci seen jàngat làmb comme ni ñu leen koy defalee saa su fii ci wasaare làmb ma ànd ceeg suma papa Père Birahim Ndiaye mi nga xamante ni kenn du ko présenté ci làmb la ma leen waxoon démb ak ki démb loolu laa leen di fi yéene waxaat tey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 kon nag maa ngi nuyu ñëpp di leen bëgg toujours nag jërëjëf. Père euh, keroog jàngat làmb bi dañ cee waxtaan ci diggante combat bi nga xamante ni mooy combat Eumeu Sène mhm. Bombardier Euh, mm-hmm. Bombardier ak Modou mm-hmm. ñu waxtaan ci euh, mm-hmm. nga analyser combat bi euh, ba Sénégal gépp ku ko xool di nga xam ne Modou Lo kat erreur yi la def ba ñàkk ci combat boobu Bombardier lim ci def ba am ci ndam tey ñu fas yéene waxtaanee Bombardier ak Eumeu Sène muy combat boobu nga xamante ni combat royal la doxoon ci diggante Bombardier Eumeu Sène bis bi Eumeu Sène di jël titre roi des arènes mu am bëre boo xamante ni feeñ na fa Bombardier am na erreur bi mu def ba daan naam diggante mag am Modou Lo def na ci euh, def na ci fulaak fayda euh, mm-hmm. deful erreur ba wala bokk erreur yi barewul ba am na ci ndam mm-hmm. mais combat bi daf koo bëriwaat ak xale def ci erreur ba am ci defet mm-hmm. tey loolu lañ bëggoon ñu analyser ko seetaan combat bi waxtaan ci ba bi képp kuy seetaan làmb ji rek ku ci nekk mën cee jariñu xale yi ci war a jàng jàng ci combat boobu avant tout euh, dugg si Bombardier ak dugg si Eumeu Sène nan nga ko gisee waaw dugg bi see bi ñu dugg see ñoom ñaar yëpp xool naa leen. Hmm. mais bi ma jëkkee xool Ama seen mu ñuul kukk sama bët. Hmm. Euh, nee naa leen Ama Sène mii de tey jii euh, su indee jom ak fit nee hmm. naqaree daan. waaw loolu moom xalaatoon ko xaw moom nag booba kuy daan. wax dëgg yàlla parce que combat bu ñëwagul mënoo wax ne kii kii kii daan. waaye li ma gisoon mooy gisoon naa ne Ama Sène nii ñëwaay bi ma gis ci moom nii ak taay ba forme bi ma gis ci moom. tey bu fekkee indi na fit ak jom dina naqaree daan. waaw man loolu gisoon naa loolu. Eh, ba Bombardier tamit gis naa ne entraîné na combat bi préparé na ko. Hmm. waaye moom ak Modou Lo dafa bokkul moom Modou Lo dañoo bokk taxawaay ñoom ñaar. ku ne ñaari pied gauche lañu. Hmm. mais combat bii dafa am dafa am changement. Hmm. parce que combat bi kii pied droit la ak pied gauche. li ma koy waxee toujours gars yi pour ñu xam pied gauche ak pied droit saa yi ñu taxawee ci bëri rek bëri ba changé na. changé na waaw changé na. kan moo ëpp faveur ci ñoom ñaar. très bien ça la plupart nag ki nga xam ne mooy teg pied droit. li gauche yi muy bëri dafay bari. ba gauche bi muy bëri un pied gauche moo koy gën a jubu parce que li mu entraînement beeg ak ñi muy contact ak ñëpp ñu ci ëpp yëpp du ñu ay droit ci ay gauche lañ ko ay gauche lañ ko tegal te moom droite la. Hmm. kon exceptionnel la ci seen biir moom dina mën loo xam ne gars yi duñ ko bon parce que moom tàmm naa bëri un gauche. Hmm. kuy teg pied gauche. koo xam ne tàmm na ko ba pare. Hmm. léegi nag bu ñëwee rek tey ñu tegal ko droite ah dégg nga daal di jafe ci moom. loolu nag la bombe am ci combat bi. parce que bëri Modou Lo moo gënoon a jubu moo ko gën a jubu heure yooyu ci def yëpp lu tax du feeñ parce que da Modou Lo jubu na ko moom jubu na Modou Lo parce que kenn ku ne ñaari polo bii nag Eumeu Sène dafa ñëw teg droite moom mu teg gauche bëri bi foofu la commencé jafe ci moom bu ñëwee ba ci làmb ji ci bëri bi fii la commencé jafe nag ci ci ci ci Bombardier waaw mooy droit parce que un droitier ni ngay bëri moom stratégie la yoon la dañ dañ la koy jàngal suñ la ko jàngul saa yoo ñëwee damay réer man maa la wax li koy mm. li ma la koy téye dara du ci dañ dama ne la parce que un droitier tey bu nekkoon dañoo sol bu ñu war te nekk ci benn tapis ñaa la woon un trois tiers nan la ñuy bëreeg moom ki nga xam dafa teg tànk bi nga xam ne jubu la nii ngay bëreeg nga xam ne jubu na la moom damay waaxu rek baata tontu la parce que mu sa garde yaa ngi ci gardam jubu la waaye ki nga xam ne kii dafa te tànk boo xam ne bi tànk bi jubu la booy boo day jafe ci yow booy song day jàpp ci yow loolu daf day jafe ci yow parce que jubu la père léegi ñu dem. waaw seetaan combat boobu. ñu ñëw diggante Eumeu Sène. dëgg ak euh, Bombardier. Hmm. père arbitre bi sifflé na. waaw ana Bombardier. Bombardier mu ngi nii war na ginnaaw. Hmm. dégg maa ngi jàkkaarloo Eumeu Sène. Hmm. mais Eumeu Sène ma wax pied droit bi rek. teg euh, Bombardier gis gauche bi mu teg nii. léegi ñu ngi léewtoo mais fu ñu tuuree ko Eumeu Sène moom Bombardier jaaxalu ko parce que teg na tànk boo xam ne jubu na ko parce que yàgg naa bëri un gaucher. parce que comme ni ma la wax rek un gaucher li ëpp lu muy entraîné moom la ëpp lu muy bëri. dégg kii de pour moi mooy droitier droitier bariwul ci làmb am na ci léegi mais bariwul bu njëkk ay ñett ñeent ko daan def suñu jamono ay Pape Kan Thiaré ñu ko daan gis mu ñu ko bëreel ak gis nga jamono yi mu ñoom Moustapha Gueye Moustapha Gueye rek fi daan bëri droit bari ak ñoom moo kii ku mais léegi nag euh, ba tey loolu dafa am ci gis nga fii ni ñu ngi léetoon yi mais ba tey bëri bi tëju na ci ci kii ci Bombardier bi waaw parce que fu mu tëjee mooy ci ci tànk bii waa ji teg mooy jaaxal bi hmm. bu Bombardier du xeex bi dégg hmm. mais tànk bi mu teg moo ko dul jubu loolu nag danga stratégie boo xam da nga koy jàng bala ngaa ñëw ci làmb ji ñu dem waaw ñu ngi léewtoo hmm. déplacement ñu dem dem fii ne fii ne tenaa tekk rek du ko mën a sànjaabu mais teen bëre bi yàggee danaan ah ñu ko kii xoolal waaw gis nga laaw laaw Amosir ñëwal wan ko ne ñeme naa la. Amosir mhm. combat boobu dañu ci ragal. Mhm. fit la ci wane ak jom ak bëgg a daan. Mhm. parce que ni a taxawee neex na ko. mooy xam nga ñoom faw moo tax mu xëy mu xoox mu dóor mu dóor mu dóor mu wane wane wane jàmbaaram. da cee wane jàmbaar. ñu dem. ñu jàppante. waaw gis nga jàppante bi. gis nga ni ñu jàppante nii. gis nga wër fi mu njëkk fi mu njëkk a defee erreur. ba ba ba dem. delluwaat tuuti ba tuuti. fi muy sukkee nii di ko def foofu demal waaw xam nga xelatuñ moom toujours xam na ne taxawal taxawal ndóobé li xam na ne bi ma ñëw si xam na ne moom ci boppam dama seen da koy song si uh-huh. mais bi ko songee wër tànk boobu war a laal gauche bi tànk bi tu gauche la teg buy laaj tànk bi ci ginnaaw droite bi lay ràcc fël loxo bi daal di ko yëngu arrêté gauche tibb ko hmm. yoon laa bi teew leer hmm. mais nag loolu def ko dafa daal di tànk bi ci morom bi waa ji këpp ko mu daal di sukk. comprendre nañu ko wax baax. pour ñuy seetaat hmm. bu déetoo dafa war a fël loxo bi demal naan. demal nga fii. Hmm. xam nga dafa war a fël loxo bi. Hmm. demal voilà gis nga loxo bi mu léegi moom si boppam daf ko daf xam nga da teq si. mais du du tànk bi du ko déplacé. day fël loxo bi rek génne ko mais du def nii. su reculer tànk bi warul. waaw bu reculer doo doo am équilibre. loolu loolu moo ko sukkandiku gis nga loolu moo mm-hmm. parce que dafa war a fléchir jambe yi fël loxo bi. dégg nga li ma la. Mm-hmm. mais boo wëccee tànk bi def ko nii dajale ko ah. na day daal a amaseel ko ci mu sëkkee benn amaseel mu ko déggee teq mu fël loxo bi rek. Mm-hmm. ràcc tànk bi ci ginnaaw am taxawaay bu dëgër amaseel du ko mën a wër. mais dafa ñëw donc donc au lieu mu fay dafa laaj ci tànk bi dawale tànk bi pour bañ mu jël ko. tànk bi mu dawalee pour jël ko rek tànk yi day daal di tolloo léegi bu ko que day diisee ci kanam. day daal di këpp. ayca ñu dem. ñu dem. waaw gis nga léegi xam nga def na kàddaapé. jàpp ko day daal dem rek ci ginnaaw. Mm. gis nga fii sax léegi ni mu waroon def moom day def te samp benn loxo bi yëkkati benn loxo bi jóg. tawal tànk droit bi ci ginnaaw. day tawal geneen droit bi action bi comme dem na nii rek mais xam nga loolu un lieu def ko tamit yombul. un mhm. lieu bu këpp bu dajee rek day dem. loolu bu mhm. dajee rek day rot. Mhm. waaye daj jógaat ko mën. moo tax fii pour mu jóg dina xaw a jafe mais nag amoon na chance su tamit rëpp benn loxo bi tawal tànk bi ci ginnaaw du laal tànk kanam bi tànk ginnaaw bi la yëkkati daal di jóg. foofu nag lenn ngi fi soo calculer comme épercule bi nga fa dóor wala nga calculer koor koor sa menton yooyu boo ko ci xalaatee doo ci génn parce que dafa am lu mu sa xel ba dootu ko mën moo tax fii fii tam jox rek di génne ak sens ak parce que fii pour mu génn fii day daal jafe fii xam-xam dëgg dëgg dëgg ak teewee la fii génne waa te tey fii nag pour mu teey fii day jafe parce que euh, waa ji xës na ko am ba pare gis nga ko gis sa fi mu daaw gis nga. déplacement bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mooy li indi concours bi yëpp mooy tànk ba mu tëkkee tànk ba dafa doon fël loxo bi rek tànk bi day këppu. lu yomb ko daan lu yomb loo xam ne nii te loolu maa ngi wax Bombardier ci combat bii. Hmm. na xool li ma wax gis nga su ko jàngul bu bëriwaat rek keneen kii da ko nekk ci daaraam parce que déséquilibre dafa yomb ci moom. Hmm. mais bu taxawaayam doon bëri dëgg dëgg dëgg ay fausse yoon taxawaay déplacé am baax ku naqari daal lay doon parce que am na gabarit bi mais wax mais pour moom da dafa gaaw a déséquilibré. mais père est-ce que combat bi yoonu xeex la woon ci Bombardier parce que Bombardier dafa mel ni. dafa dafa pare woon pour xeex ak Eumeu Sène parce que dóor yi boo gisee rafale yi bi muy dóor. waaw dóorul sax comme ni Bombardier. waaw waaw daan xeexee wax droit la indi rafale rek dóor. xeex bi xam nga tam indi ko. Mm. parce que wax naa la ko ci commencement bi bëri bi dafa tëju ci moom. bu ah bu tëjee foofu buntu bi buntu bu tëjee. moo hmm. ko yóbbee. boo xeexul du ubbi. déedéet ah, foog nga xeex foog nga laal gauche laal droite kuy jaar bi mën ko. Hmm. bi ko mu fekk que ni amal seen taxaw jubuu ko. Hmm. baaxul ci moom. dégg nga moo tax day laaw rek teel teel teel teel dem parce que yaa sut yaa ko. waaye amal seen nii tamit boo xoolee mën nga koo sut te doo ko doole xam nga. parce que ni mu bindoo la quoi. mais ñu ci bari ñu doon analyser lamb dañu wax naan Bombardier bu xeexee Eumeu Sène avantage Eumeu Sène parce que Eumeu Sène Bombardier xeexam na moo koy arrangé ci ñu war a xeex dafa jaar bari hmm. na xeex bu jaar yoon am jaar yoon. xam nga yaa croisé ba wane ginnaaw ñu doon bëtt xam nga kooku du xeex bu baax. Hmm. xeexu lamb dafa am yoon. mooy da ngay teylu ngay dóore paare daw yéeg wala ñu dóor ko fël daw remplacé daw yéeg xeex bi dafa am yoon. Hmm. ni ngay jàngee A e ba mu jeex noonu la xeex amee yoon. xeex du da ngay xool dank see ko fee di laaw fii di dóor fii boo gisee booba di loolu laaw laaw laaw xaaral dóor fii lii mooy dóor nga laaw fii ñu yëg parce que dañ ñu bëri dóor la ñu wax boo ci bàyyi rek ko xam dañ ñu bëri dóor tubaab ne lutte avec frappe dégg nga mm-hmm. bu dee lutte avec frappe mooy bëri mm-hmm. wax bëri dóor da ngay dafa am wax ne boo fa tolloo bëri mm-hmm. xeex bi amatul njariñ bëri ngay indi parce que duñu laaj dañ naan ko daan nangoo. ba di laaj ku dóor dañ naan ko daan. waaw kon foofu boobu nga koy indi. Mm. mais bu fekkee fii xeex la ciy génn boobaa it ngeen xeex bu aw yoon. Mm. am na fi combat yoo xam ne topp xeex ba ñu daan jël bu dee ma jox la ci Malick Niang ba nga waxee ak ak ak ba ma bale xeex jaaru yoon rek ba jël coup hasard. Mm. coup hasard boobu ko yóbbu coup boo xam ne coup boo xam ne ma Ama Baldé préparé ko que préparé ko gis nga fa mujj. waaw moo tax xeex dafay jaar yoon moo tax ku ne kii xeex ko ci génn dañuy wax ne xeex bu aw yoon tax ñu wax. parce que boo ma tolloo ci war a xeex damay xeex mais fi nga xam ne bëree la laaj nag foofu damay bëri. parce que am na ci foo xam ne fii bu la fa nit àggee dangaa war a teg téye bu fexe lu rëcce parce que bi jaxasoo amee fii ba ñu téyante nii fii xeex amatu fi fexe indi bëri nag moo fi desoon. bul dóor bul def dara parce que soo téye benn loxo rek ci benn loxo ubbi nga bunt. comprendre nga. nit ñaari loxo la su ma téye loxo bi rocc sama gauche bi ubbi naa bunt. su ma téye sama gauche bi rocc léegi ki mën a bëri moo bëri buntu ba fa lay jaar. Hmm. te moom mbër na am na foo xam bu la fa àggee xool fi ngay tëdd rek ci des. Hmm. waaw boo mënul bëri lool am na foo xam bu la fa àggee euh, jëli xool fi ngay tëdd rek ci kon père mbër war naa mun ñaar war naa mun xeex. waaw mun naa war naa mun hmm. xeex bi buntu la a bëri tax ñuy wax. mbër bëri parce que dañuy laaj ko dóor wax naa sànq dañuy laaj ko dóor nee nañ dañ naan ko daan. comme dañ dañ naan dañuy laaj ko daan yow da war a mën a bëri. moo waral ñu ci bari bu mbër daanee topp xeex bi topp xeex bañ daan ko. waaw da ngay dégg ñu naan la ndamal dóor gàcce daan faj na ko. Ah, kon kay <laughs> tali nga saal bi <laughs> kon kay waaw gàcce dóor kay gàcce daan faj ñu fay na ji boo yëgee làmb ji nit ñi bi boo ñëwee sa kër. Hmm. boo dajee tey ñu jógee làmb ji eh ji tey ku daan. Hmm. da ngay kon tey daan ba mu am solo waaye xeex bi bokk na ci. Hmm. parce que bu rëbbee la ñuy wax léegi nag yow da ngay wut yoon am na foo xam ne bu ngeen jàppantee daal dóor amatu fa solo fexe la indi xam-xam bu la jekkoo tamit da fexe bu jéem da ngay fexe moo ci génnee. père ñu xool ni Bombardier daan euh, bëri na ci combat bi. waaw perte ko. waaw depuis combat bi ba léegi amaatul beneen combat. waaw euh, moom euh, portam ci làmb lan la lan moo ko dese parce que carrière bi làmbam fam daanaka li ko dese ci làmb bareetul leen Bombardier. waaw li nga def sama gis-gis foofu mooy jëli. Hmm. mooy làmb ji moo teguwul ci yoon. Hmm. parce que wóoruñu te Bombardier dem 45 ans nekk ci digg doole ñu ne ko damay arrêté làmb du yoon. gis naa fi ay mbir yu bari xam ne ci làmb ji. ku mel ni Bombardier mi jeexalu ci làmb ji. la mm-hmm. 45 ans war a nekk sa digg doole ñu ne dafay arrêté bëri loolu yoon. Mm-hmm. joueurs yi fii football ba am 40 40 47 ans. ñu am ay boursiers dañu daan dem ba 50 sax. ñu ni suñu jamono ak ñoo xam ne ji ak suñu bàyyi ñoom man Souleymane Diaw ay Ousmane Diaw ay Samba Diaw ñooñu bu ma la bëree ñoom ñoo ma fo ñoo ma gën bëggee fo mais te dem nañu bëri nañu ñii daan nañ ñii daan nañ leen dégg nga lamb dangay bàyyi nit kii di santé mooy bëri mën nga nag ah combat boo xam ne nga présenté seen visite médicale ñu xool la ndax apte la pour bëri wala déet bu ñëwee visite defee visite xool maanaam nga présenté sa sa certificat médical wane ne apte la pour bëri loolu ñu bàyyi la nga bëri bis boo demee ba yëg ségal nga mën a toog nga arrêté mais loolu moo yor mais pëp ki nekk digg dooleel bomba di ñu war ko bàyyi dafa war a jooy ba bàyyil boppam. Hmm. feeg yàlla koy nuyu wér ak feebar parce que fu mu war a teel am àgg fa. am na seen fu mu fa. Hmm. seen wërsëg des na ci làmb ji waaye bu ñu ñëwee daal di leen leen arrêté bu ñu arrêté tegu ñu ko ci yoon man d'accord ma ci loolu. moo tax Bombardier fi mu toll nii mu ngi tëggaat pour dem MMA bi wane ci boppam. ah voilà xam na ni. carrière làmbam fi mu toll nii dañ ko fa bëgg a arrêté mu ngi dem di wëraat yenn compétition yoo xam ne war na ci mën a wane bopp. waaw élément boobu. bu dee hmm. xam-xam tubaab yi ñoo ñu ko loolu. Hmm. waaw lu tax tubaab waxuñu loolu loolu. Hmm. tubaab yi rek tubaab yi ñooñu bu dee xam-xam yooyu bu dee règlement a a structuré sport. ñooñu gën a jaar yoon ci sport. te rek élément moo gën a sax bëri ba. dafay bëri ba waa ne nem ba ñu rek dégg nga waaw léegi ñoom ñuy def la te fonk nañu boo bakkan mm. ba moo tax dañ suñuy dóorante loxo neen mm. mais ñii duñ ko dóorante mm. foog ñoo am benn gant bu sa loxo waaw kon kay sàmm ñu ngi sàmm koy ñoo a wax ne quarante cinq ans ku fa a a wax ne waaye loolu ñun ñu ñun ñi nga xam ne nii ñun ñu arrêté la mbër bi ci digg doole boobu dem def la jaaduwul loolu kay tontu ba baat bi tontu ko baat bii ah. jërëjëf mbokk ah. yi noonu la ñuy li doon ci Père Birahim Ndiaye. dëgg la àndaloon jàngat làmb yi. mu doon loo xamante ne dañ doon analyser ñaari combat yu yu neex. Hmm. mu dox ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène. Hmm. xale yi nga xamante ne dañuy jàng bëre. leçon la yoo xamante ni père euh, Birahim mu leen koy jox képp koo xamante ni rek mbër nga war nga cee mën a jàng parce que mbër am na fu ñu lay tollu ci làmb war ngaa mën a mais am na fu lay toll ci làmb war ngaa mën a xam ni lii kat li ma père jàngaloon na ba tax ma mun cee génn. Mm-hmm. père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf di kontaan ci waxtaan ak yow parce que question yi ni koy posé neex na. Mm-hmm. yaa ngi maa yaa ngi may laaj maa ngi jéem a tontu. Mm-hmm. parce que xam-xam tamit bul gàtt xel ne yow rek yaa am xam-xam. parce que xëy na fi ñu taxaw di wax nii am na ñoo xam ne ñi xam nañ sax loo xam ne ñun xamuñu ko waaye bu ñu ñëwee ndax tàllal lañ leen seen loxo pour ñëw ñu yokk ñu xam-xam affaire bi gën a dox rek tubaarkàlla ñaan yàlla site bi yàlla avancé ko mu dem ca kanam yàlla may ñu wér gu ñu mën a taxawee seen yow di mën a wax suñu xalaat mm-hmm. waaw parce que ñun ay mag lañu di jàppale si ngeen gone yi suñuy doom ngeen ñu di jàppale rek ci mbir bi mm-hmm. waaw kon nag maa ngi jaajëfal ñëpp mm-hmm.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 ay Fatou Ndiaye nu roowu ma ak ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor